marhaban wàllum politique yoon ak yoonal njàng mu kawe ma ak situation Sadio Mané ci Bayern bokk na ci li gën a fës ci xëtu yéen kaay yi li ñeel wàllum politique Sud Quotidien mu ngi ko ci troisième candidature président Macky moom Idi Betey bu ñu sukkandikoo ci suñu naatango yi ci ab jano ak taskatu xibaar yi ci ngoon la fas yéene def mbir bu ni waaye itam ñu ngi koy xaarandi mu fësal taxawaay ji mu fas yéene am am ci élection présidentielle 2024 yu ñuy dëgmal Walfadjri quotidien nañu si joojule jamono moom président Macky Sall woy ba tey di tënku ci ab stratégie am jëmale ko ci ab tegtekaaral moom mi nga xamante ne daal nañ koy ràññee lool ci bett ay àndandoom ak i sénégalais jëmale ko ci ay dogal yu muy jël président Macky Sall nag woy ba tey dina tekk jëmale ko ci fësal ndaxam am na yéene am déet ngir bokk ci présidentielle yi Vox Populi yi nga xamante candidat ñu mën cee fixation caution bi modèle ak li ci wàllum fichu parrainage yi dépôt candidature yi ba ci publication wu liste yi ci wàllum yoon yéeni kaayu l'enquête ab laaj la xëyee ni ki tey jilee nañu ndaxam àttekat bi la di Amady Diouf miy jiite cour d'appel bu Ndakaaru mooy jiite audience altine gi fas yéene dox ci diggante Ousmane Sonko ak Mame li waral laaj bu ni mel nag bu sukkandikoo ci suñu naatango yi moo di ne moom Amady Diouf mi dañoo jiñoon parquet am ne daa génnoon a diisal dossier bi ngir dugal niru ba seeni client bii la mi jëm ci wàllum diffamation ci diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang fas yéene nañ ko ci kanamu cour d'appel bu Ndakaaru altine bu ñuy dëgmal fanweeri fan ci weeru mars lañ ko atte woon ñu tegoon ci ndoddal njiital Pastef ñaari weeru kaso yu mu dul tëdd ak ñaari téeméeri millions yi francs CFA yu mu war a fay di Mame Mbaye jëmale ko ci wàllum dommage intérêt laas yéeni kaay moom mu ngay xamle ni bu ñu moytuut jafe mënuñu ko jot loolee waral yéenekaay bi nañu yéex-yéex yi ak tamit blocage yu ñu nemmeeku jëmale ko nag ci question sociale yu mel ni wàllum indemnité de sécurité aérienne ak ni ñuy traité yenn catégorie wu liggéeykat yi daa dinay jural agent wu aviation civile yi ab mer bay futtu ci seen secteur a ginnaaw bi mu fësalee naqaram yéenekaayu laas ma nga xam le ni Cheikh Wade mi njiital intersyndical bi daa dinay menacé ni bu ñu moytuut bii le secteur u aéroportuaire dinañ ko paralyser di maanaam gàllankoral dem ak dikk gi su fekkente ne amuñu lu ñu bëgg ci lu ñuy laaj yéenekaay Le Soleil moom li ko soxal moo di juntuwaay mucc ayib yu président Macky Sall réceptionné ni ki démb jëmale ko ci wàllum enseignement supérieur yéene kaay bi nañu lu tolloo ko téeméer ak fanweer ci ay laboratoire pédagogique ak tamit wàllum gëstu di maanaam recherche yi ne si juróomi ñetti université wu Sénégal yi ñoom ñëpp des leen équipé ak itam juróom benn ISEP yi EPT ak prépa yi yéene kaay la quotidien nañu yii la jumtuwaay yu président Macky Sall jot ni ki dëmb nag ci xayma daal dina toll si juróom fukk ak ñaari milliards yi franc CFA moom njiitu réew mi bu ñu sukkandikoo ci l'observateur daal dina porox ndollu ci cérémonie ba ngir waxtaan ak élèves yi ak étudiants yi jëmale ko ci fitna gu ñu nemmeeku ci espace scolaire bi ak ci université yi moom président Macky ne école ak université dafa war nekk ab bërëb bi nga xamante ne dañu fay sakkoo xam-xam waaye ko ci wàllum fitna élève bu ne ak li nga war a def kay moo di taxaw résultat yu mucc ayib yu tax nga defar sa ëllëg amalal sa bopp njëriñ sa njaboot ak sa réewa ndar keppe ko bés bi le jour mi ñëwaat ci situation wu Sadio Mané fale ci Bayern na suñu naataango yi nañu ay jafe-jafe la daj fu mu toll nii ginnaaw bi mu desee xarañ bi mu dellu suwaate ci ay gaañu-gaañu Sadio Mané mu ngi dajale ay jafe-jafe yu mel nii ñàkkum temps de jeu ak tamit ñàkkum xarañ di maanaam contre performance bii la jafe-jafe nag mi dox ci diggante at war naa rebondir nu ma gën a gaawee bu ko mooyee nag carrière mën na fa jaare yàqu jàngeen jëf